sa lu mu ndaw baa ngi génn amaa ah, ngi génn buur nga ni xanaa Gris Bordeaux laajul tabaat ah. est-ce que Gris laaj na Malick Niang ah. ay Ama Baldé c'est un phénomène mbay mbay mbay mbay mbay kay. kooku mooy Ama Baldé. mais da ngeen ma war a may man

alaaji man dama am concept yu may def mooy ne kii mooy kii xam nga wax fi nga kii waaw xaj bi de waaw dafay xaj bi de la ma concentré wu de waaw mais dafa doon nanguwul sax ree déedéet ama wàcc na ndeysaan borom as borom gàddu bi wàcc na

yes Tombo de Tapha Tine sonne sonne Tombo de Papa Sow mu ngi noonu ngeen di seen ay la sec ama ba xool ama xool ama ngi noonu maa ngi seen ama xool ama xool ama coow mooy عم ميكيل غورباتشو لا اله الا الله

Ama mu jàkkaarloo Pakay booy tël nga booy tël nga buur doon nga ma xaw ma ko sop. sop sop. borom dëkk Ama Baldé ci sec benn bi rek kii rek la placé amul Ama Baldé ci sec sec amul ñaan ñu maal kii rek la ñaan ñaan ñu ñaan ñu bàyyi leen waaw léegi même bu jàll nga ànd loolu jàll bi day am lu mu ñàkk. waaw waaw loolu day am lu mu ñàkk. waaw waaw noonu dem ci biir ñu noonu wala ginnaaw Ama Baldé tey yàlla ana Gris Bordeaux mi ngi alxuraan ñoo ko xam bu baax a baax incha allah